ni won duma jël kaddu mais mënul ñak té lu mënta ñak def rek xadim jëlalon na ma kaddu waye nima gisé population Thiès tay mënuma baña jël kaddu premier nak ma ngi sante bu baax aliou Badara geey di président coopérative émergence sociale bu senegal parce que du wax dakaar rek ndax foo dem ci région yi am na membre yu fa jóge bokk ci coopérative muy jàmbaar lool di ku neex a àndal liggéey ba ñu commencé ak léegi awma dara loo xam ni lu ma metti ci moom la ñoy and guddi ñoy and beccëk ma di la wax ni aliou Badara na sa xel dal parce que fep fo man di dem ci coopérative dina ci and ak yow da allah and ci es bu soba yalla muy mbombay fi ñu liggéey ko inshallah allah ba président de la république ñew joxe kale inshallah ñu and ko jass ànd ko Kër njaayloo Lo ànd ko fépp foo xam ne rek am ngeen fa suuf incha allahu rabbi engagement boobu tey dañu koy jël ci kanam waa Thiès yëpp bu soobee di nuyu nag aussi kilifa diine yi nga xam ni teew nañ fi pour ma lim leen dina xawaat jafe mais damay jël nuyoo bi rek teg ko ci loxo Serigne Souleymane Seck boroom xaas mu jottali ko ci kilifa diine yëpp. mënumaa bañ a nuyu aussi soxna yi dëkk Thiès góor ñi ak jigéen ñi waaye ci soxna yi laay jëkke nag lan moo tax may jëkke ci soxna yi dama gis bu baax seen taxawaay mën naa ni semaine a ngi nii nelawuñu guddi ñu ngi def ay réunion ndax renk rek bis bi jag damay jël nuyoo bi nag teg ko ci loxo soxna Kanku Diagne mu jottali ko jàllale ko ci soxna Mama jottali ko ci mbooleem jigéen joo xam ni teew nga fi tey mënuma bañ aussi tudd góor ñi jeunes yi damay jël lépp teg ko ci loxo commissaire mu jottali ko képp koo xam ni teew nga fi tey te nekk jeune nekk fii ci Thiès. manoon naa lim mais su ma limee dañ fi yàgg mais ñëpp ci jàpp macha allah. ñu ngi sant kilifa diine yi bu baax a baax a baax a baax di sant aussi ministre conseiller maam Ousmane Diop mu ngi nii taxaw dend ak man ñu ànd ci liggéey bi lu ñu jaaxal rek maag Adeline Badara ci moom la ñuy dem mu jël téléphone woote guddi bëccëg heure bu ne woote nag ndax renk rek askan wi li ñu bëgg. ñu defal leen ko loolu nag mënuñu fi teew tey mu taxaw nii te waxuma ko di sant bu baax aussi xaadim si mi nga xam ne moo jëlal parole bi sànq dama ne woon duma wax mais wax mënul ñàkk xaadim jàmbaar la macha allah nañu ko ñaanal yàlla te xam ne lii ma def nii moom dina ko def incha allah li ma gën a kàddu nag mooy dama bëgg ñu organiser wu jigéenu Thiès ñu jàppale leen ànd ak ñoom ñu def lu mel nii ba dara def loolu à chaque fois dama koy wax damay wax ni cees moom il faut ñu teg suñu coopérative ñu nit bu am doole comme ni ko Alioune Badara defee Alioune Badara ànd ceeg ñun ñu taxawal bureau bi ñun ñëpp ñu ànd ci kilifa diine ñaan ci ñu fexe site boo xam ni site bu baax lay doon ñu tabaxal leen ko jox leen seen i caabi di sant aussi presse bi bu baax a baax a baax parce que kenn demul ñoom ñu des presse bi ñu ngi liggéey lu am solo ci senegal parce que da nga daan gis koo xam ni da ngay génn dem bitim réew doo xam dara ci biir dëkk bi léegi foo mën a nekk rek ci àdduna bi yaa ngi xam fi nga nekk sa kër sax la nga fa soxla da nga koy xam ndax presse bi ma jël nag kàddu yi nga xam ni moom laay jox presse bi teg ko ci

moom it ku jàpp ci liggéey bi la guddi bëccëg mi ngi woote pour nu liggéey bi jëmee kanam loolu aussi mënuñu fee teew te waxuñu ko di sant góor a baax a baax a baax ku diglu son bi mu def léegi xam ni ku am yéene la ñu ngi sant aussi sapeur pompier guddik démb ñu ngi fi parce que fii poussière bi dafa xawoon a bari vraiment ñu arrosé fii ba nga xam ni ku fi jaar xaw a xaw mu xaw a tane tuuti quoi di laajé nag président de la république jàmbaar la macha allah parce que cent mille logements nga bëgg ko def ci dëkk du lu ndaw ñun promoteurs yi man engagé wu naa personnel ànd ak moom jàppale ko ci cent mille logements yi damay wax ni état mënul def lépp kenn ku ne nekk la nga nekk da nga cay ànd ak moom bay ci sawaar ba yàlla dimbali leen Sénégal jëm kanam ñu ngi sant mbooloo mi ñëpp di sant sëñ Xaadim Lo Gaydel bu baax a baax a baax di sant Cheikh Tidiane Gueye sama xalifa ñëw na ànd ak man ñëw teew si fii di sant mbooloo mi ñëpp di gërëm ñëpp daaw ma wax ci mbooloo mais tey mënumaa bañ a wax ñu ngi sant yàlla di gërëm ñëpp di balaax ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah